waaw non xam nga. ci opposition bi opposition bi fi nekk nii. waaw ban opposition. moo mën a delluloo ginnaaw Macky ci li muy ci li muy dox. ci jëm mais le peuple sénégalais xam nga Bira il faut que les gens comprennent une chose cette opposition c' la voix du peuple en réalité gis nga le président il a compris que bu demee élection il va perdre son candidat n'a jamais gagné un bureau de vote ni un centre de vote encore moins un département waxuma la au niveau par conséquent il va à l'élection présidentielle il perd d'office effectivement doyen bi xaw ma Babacar wax na ko gëwma ne sax dina jël troisième man bu ma ko doon classé cinquième laa koy classé compte tenu bien évidemment de quelques scores yi sax yaa ngi xam ne nii ay jàppaleeg duxum euh, ak yooyu ba mu mën a jël cinquième sinon ils sont vomis par les populations loolu mooy réalité bi maintenant je reviens un peu sur après le 2 bi c'est extrêmement important Euh, bu ñu bu ñu bu ñu lëndëmal xelu askan bi il faut que ñu waxtaan ko sur la base des chose très simples et très claires ñun la constitution mooy nday charte réew mi euh, li nga xam ne nii mooy kënu bi nga xam ne ci la réew mi sukkandiku constitution bi dafa am yu mu prévoir ak yu mu prévoir yu mu prévoir en son article 39 daf ne le président de la République est remplacé par le président de l'Assemblée nationale en euh, cité trois cas décès incapacité ak retrait définitif maintenant nag cette situation bi ñu président Macky Sall bëgg yóbbu parce que keroog ci interview am d'emblée il a dit que je vais pas démissionner par conséquent son mandat va arriver à terme mu nekk président de la République bu son mandat arrivé à terme kooku constitution bi prévoir ko mais mën nga ko fekk ci article 92 de la constitution bi wax ci exception d'inconstitutionnalité yi loolu ça revient au conseil constitutionnel mu àtte ko conseil constitutionnel nag le cas de Sall moom da ko àtte ba pare même si s'agit d'intérim de de de de vacance ñu ne dañuy wut kenn bu gérer intérim bi du doon président Macky Sall parce que conseil bi da ko àtte 2016 ne ko sa mandat du yokk du wàññeeku ñëwaat defaat décision après recours yi. candidats yi ak les euh, parlementaires je rappelle que le président Gakou est le premier à déposer un recours au conseil constitutionnel après même le speech du président Macky Sall. ci mm-hmm. report bi conseil constitutionnel jox ko dëgg comme il a l'habitude de diir ndamal askan wi la ndamal candidats yi la mais ndamal la moom it à partir de ce moment. conseil constitutionnel comme comme ni Mame déposé tey recours am rek moom tamit. conseil constitutionnel déposé na je je termine mon raisonnement après le deux boobu. conseil constitutionnel da ko àtte le 16 ne ko du ñu yokk nii du ñu wàññi sa mandat. ñëwaat ci décision boobu nga xam ne nii euh, les candidats def nañ recours ak les parlements wala les parlementaires ne ko maa nga lay fàttali ne décidé woon naa ne mandat bi kenn du ko yokk wala ñu koy wàññi sur la base des conséquence sur la base de euh, des situations du moment et quelles que soient les raisons. d'accord à partir de ce moment le président Macky moom génn na ci jeu après le deux bi. ñun li ñu koy wax mooy il n'est jamais pour bien faire li ñu jàpp mooy actuellement atteindre guñu l'intervalle intervalle bi nga xam ne nii la constitution dañu koo tëggal mooy 45 jours francs yi. Hmm. ak 30 jours francs au minimum génn ñu ci quitte à que ñu réduire le nombre de jours de campagne mais nañu dem élection gis nga la reprise du processus électoral loolu loolu loolu en réalité pour man. ñiy fawee plus ou moins seen xel ñoo koy wax la conseil constitutionnel même sa décision ba euh, Rose Wardini di génn da ko dëggalaat c'est-à-dire le processus électoral continue suit son cours amul benn consensus bu ko mën a tax ñu delloo ko ginnaaw rawatina nag consensus ba nga xam ne nii seize des dix-neuf candidats retenus bokkuñu ci bu fekkoon ne les dix-neuf candidats ñoo ànd ak un acteur ba nga xam ne nii benn point moo ko ci dese mooy jàpp la date ñu ànd ak moom sax def consensus mais sax loolu sax warta remettre en cause le processus parce que ce processus là cette élection n'appartient pas à un candidat ou un tel ça appartient au peuple sénégalais. moo mais taxit xañ nañ ñu ko def. à partir de ce moment gis nga y a aucun consensus qui peut être au-dessus de la décision ou bien des décisions du conseil constitutionnel. d'accord leneen li ci top mooy dinañ ci ñëw xam naa ko cours du débat man candidat yi vraiment je pense que chacun peut compétir. mais aussi dafa am lu am solo la nga xam ne nii ça ne relève plus du conseil constitutionnel parce que soxlaatul ay déposer ay recours ak yooyu mais ça relève des candidats wax nga ko léegi par rapport ak ah lii li mu def ak euh, Macky Sall et tout man loolu peut-être c'est des c'est des appréciations yoo xam ne mën naa ci bañ a mooy candidat man j'ai eu la chance et l'honneur ma ànd ak suma candidat ci processus de dépôt bi de bout en bout. booy déposer dañu ne la il faut neuf points. yaa xam ne da koy remplir parrainage ci la bokk neuf pièces yi te neuf pièces yooyu dafa am ñaari pièces yu fondamental ya nga xam ne nii tey bu coow li baree sax bokk na ci li koy indi benn bi ñaar yëpp déclaration sur l'honneur la benn bi mooy déclaration sur l'honneur dafay waat si sa honneur ne yow amoo double nationalité amoo beneen nationalité bu dul nationalité sénégalaise tey dafa yomb trop nga taxaw ne awma nationalité wala nga amoon ko pare ne perte naa ko boo ko perte war ñu décret bi lay won ne perte nga nationalité bi parce que décret la Karim Wade génne ñu ne ko se trop tard à de ce moment yow décret bii tax nga perte sa nationalité mais war ñu ko mais du ñu yem foofu. ñi nga xam génnewul décret France moo ñu génneel décret. waa mais mais de toute façon y a un décret qui est sorti qui dit que Karim Wade nekkatul de nationalité française à de ce moment yow mi ko amoon wala yow mi ko amoon wala yow mi ko am. ñun sénégalais pour être édifié il faut que nga woon un décret te du may am foofu gis nga loolu par parjure la mooy maanaam da wax lu du dëgg te ku wax lu du dëgg waroo jiit suñu yëpp mais au delà de la au delà de la double nationalité pour terminer foofu y a beneen déclaration sur l'honneur mooy di ngay déclarer sur l'honneur na yow tu es en règle avec la fiscalité du pays gis nga fiscalité dafa am solo tay jii sama maam may jaay caaf ak menuisier bay bay bay dagg bois ak keneen ka nga xam ne nii maçon la wala leen ak ñoom ñëpp dañuy fay lemp yow bu fekkee ne candidat nga nga ne da bëgg a jiite askan bi boo fayul lépp waruñu laa jox nga jiite askan wi loolu di benn. bu fekkee ne nag da nga déclarer sur l'honneur waat na yow. tu es en règle avec le fisc. alors que c'est pas loolu tamit par da ngaa war a génn ci yi. moo tax moo tax sama candidat dafa génne quitus fiscal am. défier Ba et tous les autres candidats. les gens sortent leur quitus fiscal pour dire que. gis nga réew mi dafa toll fa nga xam ne bu ñu ko naree tabax aussi il faut qu'on se dise des vérités loolu nag beneen point la ba nga xam ne nii bu ñu ca tollee. d'accord man j'invite man personnellement Mor Diaw le coordonnateur de la jeunesse de Gakou 2024 j'invite tous les autres candidats à montrer leur quitus d'accord mais pour ouais. l'instant l'heure et l'heure est à ce que président Macky Sall micmac ak subterfuge yi muy def il faut qu'il l'arrête et qu'il s'honore et honore le peuple sénégalais. loolu nag mënu ko def lu dul fixer la date de lelection à partir de 3 mars wala le 10 mars ñu dem compétition képp ku sénégalais yi fal nga doxal bu ñu paree l'aspect économique mun nañ ci ñëw ak yeneen ak yeneen ak l'aspect social réew mi sëgg na yàqu na mais man j'ai la certitude que demain une fois élu ñun jàpp nañu ne war nañu mun a redresser réew mi surtout d'accord doyen yàlla euh, y